Avant de commencer, on vous rappelle que le Sénégal... Le Sénégal est champion olympique Avec... L'étoile sur le maillot une compagnie, deuxième session, gardez-vous, deuxième tour classe 2015. Aïe Aïe ah borom bi kan ah ouais, d'abord il y a ki kan la min ko Nous nous waxuma la eh, nga xam jox ça c'est bien maître qui ni kan la Macky Sall maître bu kii du Sonko. déet. di parle il faut référendum sur. Sonko maître nee na kii du yow. ko waxul dëgg. metre dégg nga Sonko. man dama doon fen. xanaa mënoo bàyyi loolu. ci laa dëkk. loolu de moo tax nga siiw. barke alxuraan. dégg naa di premier Dóor Ami Ndiaye jàpp nañ leen. man je pense que état bi dafay yéex a def lii. lu tax nga wax loolu. ndax euh, Olof Ndiaye nee na bukki bu yebee waxal euh, euh, gaynde ci ca doxin wala. yaa ngi feneen Olof Ndiaye de. Ah. te kii ñàkk na jom torop. Sonko.

mais yaa and ak ño xamni ñu ngi lay gassal kam go xamni mm. wutalu len neex rek xam Sénégal yàlla falon dinañ la foli ndax ku fàttee la la falon sa folleeku day gaaw. maître ki do yow. Ousmane Sonko la. yow daal lu jox nga Ousmane Sonko. mais nepp mom la. te yalla maître jogal ñibi du ko nangu da nga bàyyi ma wax. maître jogal nga da ngay wax. dama ma lank Fall kaa génne maître fi bu dee gor yalla nga sa ñeme nga gënal ñu jël sa bakkan. eh waye ndaw Samba. ren la bu yàgg daal ko man. amul yuux amul dara Diop na yar bi dal. da da fen de. voilà merci. merci et à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner.